Euh, laaj bi ñu am mooy dangaa wax léegi ne yonent bi sallallahu wa sallam bi muy dem di si al isra wal miraaj di jëli ji julli jiite na yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mm-hmm. ti boobu julli farataal guñ ko woon ñu bëggoon a xam julli googu kayfiya bi wala sifa bi laaj bu am solo la moo di am na ay mbir yoo xam ne xabaar bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tax nga xam ko su la ko waxul woon doo ko xam su la ko waxee it sa xam-xam fam cay yem mooy lam la wax moom daal xabaar nañu ne bi nga xamee ni ñëw na ba baytul maqdis borom bi tabaraka wa taala indi na yonent yi mu jiite leen julli ci ban façon jiite la leen jiite ñaata rakkaale julli loola nettali wunu ko kon fi sa xam-xam yam ci yoo foofu mooy ni jiite na leen ak julli xamal ne it yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax na ci siira ne am na xeeti julli yu mu daan julli lu jiitu julli di wàcc ci moom da daan même bi mu nekkagul yonent sax da daan làmbatu di yéeg ca kaw xaaru xiraa di tudd yàlla di ma def ay xeeti jaamu yàlla la desoon ca diine Ibrahim ñi doon ko tudde alxanifiya mu yor ko di ko jëfandikoo loola julli nekkoon na ca biir léegi léeg mu daan ko jëfandikoo am na ay qisas yu ñu lay nettali ci siira yonente bi alayhi salaatu wasalaam di julli yéefar yi ñëw di teg jël ay affaire di ko teg ci kawam almuhaqqaq ci ni ko boroom xam-xame siira yi nettale mooy loola booba far julli nekkaguloon farata ci ñoom waaye gannaaw bi nag la julli wàcc ci ñoom kon am na xeetu julli wu amoon ndax nag da leen a jiite ci xeeti julli yi daan julli rek wala suñ borom tabaraka wa taala da koo digal ne ko jiite leen ci jullik Ibrahima wala ci jullik Muusa wala ci jullik keneen yàlla moo xam lam nu jote jot li daal mooy jiite na leen ñu julli nu mu ko defee ñaata rakkaa la kan la woon ci yonente yi ndax yonente yi seeni sharia da doon wuute allahu aalam yàlla rek moo ko xam ñaare nag sharia yi nga xam ne dañ la koy gàttalal nga xam ca tuuti li ci des doo ko xam day fekk ne sa xam ko mën naa ñàkk te du la wàññi dara maanaam sun xamut gan ban façon julli lañ doon julli kooku duñu wàññi dara li ñu wàññi dara mooy nu bañ a xam julli gi ñu wàcce woon ci moom niñ ko doon jullee <coughs> bokk na ci li li ñu waroon a fàttali ci commencement bi mooy ñi xam ne julli farata biñ ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par ñaari rakkaa rek la woon julli yépp ñaari rakkaa la woon genn julli moo doon ñetti rakkaa muy timis genn julli képp lañ farataal muy ñetti rakkaa waaye yi ci des yépp ñaar ñaar la woon ñi dem ba jëmmi jamono ñu ne ah ñaar yi nañ ko bàyyil kuy tukki bu dee ki nekk këram mu julli ñeenti rakka ñu daal koy soppi moo tax fa uqirrat salaatu safar noonu la ko Aïcha radiallahu taala anha nettalee ñu bàyyi julli tukki mu mel nam meloon ki nekk musaafir ak julleem day wéy ca farata ju jëkk ja loolu moo tax kàddug wàññi julli dañ koy wax waaye du noonu maanaam wàññiwuñ ko moom kay noonu la meloon julli gi ci kër gi nga xam ne tukkiwoo googu lañu yokk nga ca des ñu bàyyi ko na meloon foofu nag la lenn ci boroom xam-xam yi sukkandiku ba ne musaafir moom sëñ te matal sëñ matal ndax noonu lañ ko farataale noonu ñu ko farataale sëñoo ko sopp yow di ci dolli ndax fa ziidat fi salaati alxadar la wax dañoo dolli ci julli ki tukkiwut wut ka tukki nag ñu bàyyi ak julleem nam meloon tomb bobu ci ñu waroon waxale ci la bok mhm. wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah man de audio bi de waxi Ahmad Lo de ah doy na war de kon dal man dal li ma ci Ahmad Lo ji ni manam ñaari rakka moom mooy farata ji yee ziyadat la dañ ko ñu kon moom dem na ba expliquer ni euh, salaatul musaafir julli kuy tukki maanaam mu yokk wàññiwul julli daa dem ca cosaan la mu julli comme ça boo doon tukkite ji wala julli tusbaar doo julli ñeenti rakka ñaari rakka rek nga julli te ñaari rakka yooyu dëgg wàññi julli mais nag delloo ko ca a yàlla woon ah oustaz Babacar ak ñi nga xam ne yéen a a xam ci wàllu wi daal war ngeen a ñëw fii waaye li dal doy na waar daal wax deug yalla ah man bok la tudna ma lol lol lol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faaso de sen ñu na leen ci yalla leen baax. cey diine ji cey diine ji cey diine ji diine ji de ma bu done boñ bi metti mom xamna du gaaw wir ah waaw ngal bo de ba yaakaar ni yaa jappu jàpp ah, loolu ñu naan yew gayne gola gi am lu ko tekki ndax bo xoolee dal video bi de mom Ahmed loolu li ñu fi wax moom daanaka moom quran yoon la rek ndax it li quran yoon yi wax rek la saxal ma xamul nag nees koy def waaye daal bu nee ñaari rakka yi moom moo musa sax kon yeneen yi ci des des ko cee dolli te jàpp na ni mooy li jiitu ay booy dem dëkk di yokk digal di wàññi yooyu daanaka saxut maanaam daal lu nu keree teg la fi maanaam dégg-dégg daal boo ko ci amee ci vidéo bi loolu lay wax waaw bu ko defee nag moom léegi julli yooyu nga xam ne mooy ñaari rakk yi comme ñoom ni ko xuraan yoon yi waxee ñun mënuñu koo déggee noonu ndax ñoom ci alxuraan lañ ko delloo ndax Ahmed Lo ñaari rakk yi muy wax moom yonente bi moo ko doon def jàngale ko wala yonente yee fi jiitu woon ñoo ko daa def jàngale ko loolu it bu ci ñëwoon daal dana gën a baax mu wax dëgg yàlla wala keneen ku ko mën a leeral comme ko Ahmed Lo mënuñu saa jot waaye li mu wéral mooy ñaari rakk mooy li wér. li lépp des ko cee teg léegi nag ñaari rakk yooyu nga xam ne moo wér moom fan lees ko bind ndax hadis la euh, wala ndax feneen daal fu ko déggee daal loo xam ne daal ab siira la boo xam ni des na ko mën a gis bu wuteeg bii nga xam ni moom la xoraan yooyu wax boo demee ci alxuraan ji dégg fa leneen lu bokkut li ñuy wax bu ko defee nag yëf a ngi bëgg a jaxasoo de waaw lii daal moom moom ñuy gën a wëndeel nit ñi di miirloo nit ñi xanaa doo xam looy jàpp nag. jibril dafa ñëw jiite ko suba ni ko yàlla nee na nga julli ñaari ràkk ñaari ràkk yooyu nag jibril moo ko jiite ndax booba xamagul nu ñu jullee jibril ñëw taxaw kàbbar muhammad kàbbar jibril sëgg muhammad sëgg jibril siggi muhammad siggi jibril jëpp dem ci suuf muhammad jëpp dem ci suuf mu yàgg ca lool muhammad dafa ne jibril siggi na mu siggi nag fekk siggiwul mu sëggaat moo tax ñu ko ñaari sujud ne benn la woon benn rek la moom la ci la ko jàngal julli jàngal ko njàpp ni ko itii nil wado a bi bi tiin fa uruykumul يمكن الوضوء بوضيء فأريكم الوضوء إن المندى تنرخ مولاني جبت ائتني الوضوء بوضيء فأريكم الوضوء